asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi fu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi te damay ñëw rek wax si équipe nationale Sénégal Aliou Cissé nag moo tax may wax euh, Aliou Cissé euh, jamono bi da doon wër match amical dem na sax boo wax euh, waa CAF xam wax naka ñëpp dégg nañ kë mu ne bu soñoon match yi xam ne ñu ko doon joué septembre muy éliminatoire Coupe d'Afrique bi war a am fële 2023 Côte d'Ivoire xam nga donc ñaari match yooyu wa CAF may leen ñu annulé ko xam nga tekk ne leen de l'autre côté ba coupe du monde jeex ñu joué comme ça ñu mën a am deux matchs euh, yoo xamante nañ mën a préparer seen coupe du monde mais moom waxu ko pour moom parce que nee pays africains yi qualifié yu si mel ni Cameroun sax euh, wala sax Maroc dañ wala may loolu comme ça ñu mën a préparer seen seen ki seen coupe du monde parce que ñëpp xam nañ ne bu ñu joué suñu ñaari match yi mujj ni muy contre Bénin ak euh, Rwanda la ñu waroon am benn match amical mu dee dee malheureusement géew ñu match amical yéen a ngi gis France seen Ligue des boobu loolu moo tax mu am mu am Europe di nga mën a dajal ay Algérie Côte d'Ivoire Nigéria gars nga mën a nga kiiwoon ñoom quoi nga nga sa doole par ñoom ba pare mën na nekk beneen trophée parce que sélection dafa doy waar sélection ñaari trophée nga mën a gagné a coupe d'Afrique wala coupe du monde ñaar yi mënoo weesu ba moo tax ñu créé fële na leen daan créé ay match amical mais amul woon solo noonu gars yi ñu ko seetaan xoolal amical day ñaari équipe yu mag bi ñu ko defee coupe commencement bi ñëpp dina di xeex di bëgg dee di ko ñu créé waa deuxième bi deuxième édition bi nii France gagné mais ay match yu métti c'est comme Ligue des Champions wala demi-finale coupe du monde la yóbbu mais match yu neex ay ay Belgique Espagne ay yu neex sax France Belgique xam nga donc fii boobu defoon benn Ligue des Nations au début gars yi nañ ree c'est boobu rek Ligue conférence a commencé naa ñëpp Europe dina waaye coupe bu dee bi nangam nangam waaye waa Roma dañ ko mii xam na gagné Ligue des Champions jël jël UEFA da doon jooy trophée trophée la moo tax fii Afrique malheureusement loolu moo ñu manqué mais bu ñu ñëwaat si bi xam nga moo ñu tax a jóg tey record moo ñu xamal ne euh, jamono bi Aliou Cissé ñaar équipe yi la Côte d'Ivoire xam nga donc la bëgg a joué mu daal jaaxal nañ Côte d'Ivoire nañ suñu poule Qatar moo fa nekk Équateur ak Hollande donc yooyu mais malheureusement man euh, euh, Mbaye Diouf Diallo njëkk a dégg sur Walfadjri mun na ñun à quatre-vingt-quinze pour cent d' accord nañu Brésil. mais moo jég saa bon ñu waxul lan moo la pourquoi mu rejeté a am moo tax ñuy jox deux matchs ma ne Aliou Cissé bu doon man maay moom la damay woo trente jours. s'il le faut sax xol jouer ak Guinée bi xamante suñu ñi nekk sous région bi ne ay Mali dëkk yi xam nga si no 30 jours mën a essayer joueurs yi bare bare bare bare surtout deux matchs yi éliminatoires mënoon nañu jouer ak ñi comme ni titulaire yi Sadio Mané ñoom seen ñu troisième match yi mënoon nañu essayer ñoom Alfred San Diop dem ba c'est keneen ak keneen Iliman Ndiaye xoolaat ak ñeneen ñi xamante ne convoqué leen fallait lay convoqué sax pour mën 30 jours vu que euh, saison bi dafa un peu compliqué quoi ay date FIFA bëri yu si xam donc moom instant ñaari match yooyu la bëgg remplacer par par Cameroun xam donc ak Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire faut savoir que day préparer coupe d'Afrique am dem qualifier coupe na xool natt dooleem xëy na tamit boo dee ak Sénégal mën nga natt sa doole ak joueur de classe moom nee na pour pour pour a préparer Équateur la moo tax mu jël a préparer rek la finalement parce que ñun ñooy tuuti premier match yi ñun koy joué fi sans mooy bu ñuy bu ñuy jógee suñu championnat di noppalee ko def naa cinq jours si je me trompe pas gën donc dafa tuuti délai bi moo ndaw ndaw nga xamante ne mën ñu fi def dara dara dara dara moo man bi passe ma gisee ne ñaari match yi dama découragé fële fa lay tout faire fa lay programmer ça parce que maa ngi dégg Mbaye Diouf Diatta ba tey si Walf ak fédération ñu naan non ñu dey saa yi kañ ñëw ne dañoo bëgg a gérer ñun ñëpp ñu c'est comme si gars yi dañu ragal quoi kenn bëggul dee ak Sénégal mais gars yi dañu la ragal mais yow jéemal mais seetal je sais pas moi Burkina mais ñeneen quoi ay équipe bon équipe yu ndaw ndaw yi sax baax na surtout man waxuma sax pour Sadio Mané ak yooyu mais pour tester d'autres joueurs si toutefois sa sa banc da nga ko da nga bëgg a dëgëral quoi en fait ñii ñi Sénégalais yi xam si ñeneen joueurs la lañ wax Moustapha Nang gars yi bëgg nañu xool réellement qu'est-ce qu'il peut apporter tey bu ñu demoon coupe du monde suñu joueur blessé la la lañ mën a apporter xam nga di doon xool tamit Pamata Matar Sarr dal dans un troisième match ban potentiel lay andi mais différentes choses quoi bu fekkee da ngay saa toi défenseur nga xool c'est pas moi ba pare joueurs da nga leen doon yokk ñu bëree bëri ba ay Ismaël Jacob sax keneen ak keneen ak keneen ak keneen pas Ousmane Sakho Sénégalais maanaam ñu ñuy rak ñu ñuy ñu ñuy wax si si si réseau yi dinaan diw diw diw duñ ko bëgg a gis xam nga fa pour man moo tax bu ma gisulee match le douze bi amul sax dama dama découragé parce que bu fekkoon match le douze bi am na mu nekkoon Brésil nag boo waa du ma bëgg ñu testé du ma bëgg gars yi ñu testé leen boobu damay bëgg a gis la meilleure équipe possible maanaam équipe bii gën classement bii gën pour Aliou Cissé man loolu laa gisoon bu fekkoon gars yi dañ fi nekk nii man loolu laa gisoon de mais comme nii nii nee na d'Ivoire ñoo koy ñaanal parce que match de lu baax la lu baax la pour mën a parce que kenn xamul lan mooy xaw saison bi ñëw moom lay wax souvent un peu bon am sa groupe am sa équipe noonu mu si changé dara mais saison bi ñëw kenn xamul na dangay am blessé da ngay am méforme xam da ngay ndax Covid da siy dugg ba xam ndax on sait pas kenn xamul la mooy suñu borom rek moo ko xam moo tax ñun li ñu mënoon mooy la préparé wu. préparé nag mooy boo xool joueurs yu bëri mooy moo si match yi bi ma gisee ñuy dugal ay ay Kouyaté Gana dama découragé Kouyaté Gana Gueye Sénégalais yëpp xam nañ ni ñu mën Aliou Cissé yow xam nga Gana Gueye ak Kouyaté surtout surtout premier match bi nga dóor 3-0 rouge benn équipe ñu rouge ko mais Moustapha Nam bu fekkee mënul jouer foofu mais il n'a pas le niveau de l'équipe nationale du xam nga donc te te kooku muy wane lu xamante ne dafa leer nañ ci këlëbam këlëbam dafay leer dafay wane lu xamante ne kenn mënu ko tekki